bayti fi Cheikhul Xadim yanoo woon liggéey bu rëy bii liggéeyoo woon ko boroomam léegaloon ko sangam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye noo ngi ziyaare bu baax ki fi nekkal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di sëriñ Muhammadul Muntaxaa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool lool te wéral ko ba ay yéeneem ci liggéeyal maamam Xaadimu Rasuul mu def ci koy njortu ànd ko ak taalibe yépp noonu lañ koy ñaanale itam borom pàkk bii ñuy àddoo ci biir këram di sëriñ Ahmadul Muxtaar ak mboolem njabooti buntu kër yi sëriñ Mouhamadul Moustapha yëpp ak jawrinam nag sëriñ Cheikh Mbacke Madina ak mboolem njabootu sëriñ Mbacke Madina gi yëpp di ziar bu baax sëriñ Abdourahman mi toog jotaay sëriñ Cheikh Amadou Mbacke ak seen sët sëriñ Moustapha Mbacke Mouhamad di ñaanal sëriñ am ni Modou Mbenda sunu borom yàggal ko moom it wéral ko <clears throat> ak njabootu maam Cheikh Ibra Fall gi yëpp ni ñu ko baaxoo defee rek saa bu demee ba weeru tam xarit wi teru commission culturelle bu. Euh, bayti àndandoo ak mboolem commission culturelle yu Daaru Xuddoos yëpp ngir waxtaane bis bu màgg bu rëy bu sell bu nekk sunu kanam mooy bis bi nga xam ne ci la Cheikhul Xadim radiallahu anhu ab liggéeyam mate woon mu dëkkaale si woon ak boroomam te taawam bu baax ba di Cheikh Abdul Moustapha al Karim andi woon ko ci dëkk bu sell bii dañuy fas yéene waxtaane màggal gi sëñ Manoussa njëkk a màggal message ba mu ci joxe woon ak màggal gi nga xam ne moom la mujj a màggal na mu ko organiser woon ne bu ma fi fekkaatee ci organisation boobu yi la koy bàyyi dootu ci soppi dara. màggal gi nag jële nañ ci ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Diop kawlax Baye Maxtaar moomu ci mag ñi mu sëñ Manoussa la bokk mu wax ne màggal gi bi ko Cheikh Manoussa Karim di woote di ci wax. nee na booba ñoom day ay dongay sëñ Modou Moustapha lañu yoo nga xam ne daara jëm wel lañ newoon di fa liggéeyal sëñ Modou Moustapha mu woo leen ci këru bayti gii ñuy waxtaanee nii nee na ñu war fee ay néeg ci kër gi. nee na bisub gaawu fukki fan ak juróom-benn ci weeru tam xarit la ma woo waxtu nee na takkusaani suuf ne ma maxtaar ju demal see wool ma bàyyi ma sàmm demal seetal ma ko boo fekkee nga wool ma ko nee na ma dem këram ñu ne ko daal nekk. ci ab tukki ci rew mi neena ma del palma, wax ko sëñ Manoussa nee neena mu ko toppal ma ko foo ci rew mi nga ne ko da ko soxla makhtar job neena wërna wërnañ ma samba ñaari fan fekk ko waxtu timis kon fukki fan yak juroom ñatt ci wërtam xarit bi lañ gis sëñ Masamba samba neena mu julli timis ba def ay lawrata ba nopi neena ma ag suuf nuyu ko ne ko sëñ Moussa mo la soxla neena nga wuy ko Touba neena ba ba waro kay yombut neena mo war wëtir ba ñu wut ci Touba neena may dox top ci neena biñu aksi guddi na lool fekk nañ sëñ Moussa Fatou sëñ Massamba itam li may doon doon kilifaam ci Zahir di bàyyam itam aggul këram wen gi ne woon ci wetu jàkkal ko sëñ Mbàkke Mohamed gii wen gi woon foofu ci wetu jumaa ji nee na foofa la fanaan sëñ Maxtaar nee na ma ñëw ci këru bayti gii néeg bi sëñ Moussa fanaan nee na ma sukk ca buntu néeg ba ñemewumaa tëri ñemewumaa àggale guddi gi ca donga ya nee na bi sëñ Moussa yëngoo ci yooroor bi maanaam mooy bi mu ubbee nee na mu xool ci buntu ci penku bi ndax neena na booba Tuubaa tay fo xol sa bët jall mu seen seigne makhtar seigne massamba fam tok toog ne buntu ko sëñ de bi fek nga fatu agul kërëm mu fanaan fofu neena na ko demal wol mako neena ba koy bo fek na fa alhaaji Moussa jom jek seigne bar Amar ak seigne ñom relo neena ma ñew wo seigne Modou mustafa ma ñew wo seigne massamba neena ñu and jiitlante bak ci beyti gi neena Cheikh gatanduko joxoñ ko lal bi bëgg mu toog ci sëñ sàmba teg loxoom ci lal bi toog fi suuf Cheikh Moustapha toog fi wetam moom ab diir génne aw kayit ci poosam jox ko nee na sëñ Masamba jàng ko ba mu àgg mu ne teg ab diir waxut Cheikh Moustapha ne ko xanaa xam nga woote bi de mu ne ko am ah, Mbàkke sama xel daf koo faayoon rek mu ne ko mu ne ko kayit wi de ba ko borom Tuubaa bindee ba mu àgg yow mii la woowoon woo ma jox la ko yow bàyyi Masamba nga jàng mu àgg delloo ko ko mu jox ma ko ma jàng ko ak di ko delloo mu ne mënu soit denc ko ba waxtu woo jot xanaa waxtu woo de agsi na nee na ma ko waaw Mbàkke mu ne ma xanaa ci at la ma waxoon de nee na ma ne ko waaw mu ma ashrira muharram de xanaa ngoon la sëñ Maxtaar Jóob neen ki laa njëkk a mu ne ko doxal jiitu ma ci jumaa maa ngi ñëw fekkoon na sëñ Moussa képp ku yaakaar sëñ Tuubaa soxla naa nee na nee na Cheikh Moussa génn ci këru bayti gii di dox wuti jumaa ja nee na ñoom donga yi jàppoo seeni loxo nee na ba ku ñu wax Baye Cheikh Jóob moo nekk seen général ñoom donga yi jam weli yooyee moo leen jiite nee na Cheikh Moustapha di dox ci digg bi ñu sikkar sikkar guddi boobu yi xam ne mag ñi ba nëgë ni moom dañu koy yëkkati ba taayif rek fan yi bërki dem rek maa ngi dégg ma am gone yu ko fa yëkkati waaye bi ñu agsee nee na fii sooroon mag bi nekk tey fi la Cheikh Moustapha yéeg ànd ak mbooloo mi waaye nee na boobu mosu ñoo xam ne ab sooroon dana fi nekk garabu loora nee na boobu moo fi sax nee na sëñ Moustapha wàcc daal ne ànd bàyyi ma sàmba sëñ ma sàmba séen ko ñu waaxu daje ñoom ñaar ñu indi ñaari sées Cheikh Moustapha joxoñ ko benn bi bëgg bàyyi ma bàyyi Masamba toog ci sëñ Masamba teg ci loxoom toog fi suuf mu Moustapha toog tiim ñaari sées yëpp ne ana Ibrahima Sare mu ko maa ngi nii mu ko yéegal ci kaw bank bay di jot su ma waxee daal ne ana ndëri mu ne ko maa ngi nii bàyyi ndëri moo daan wër naan ciment ba tooy na ba ñuy tabax jumaa ji ci jamono sëñ Moustapha ba ci sëñ Fall mu ne ko yéegal ci beneen bank bee di wax su ma waxee Ibrahima Sare wax waaye sëñ Maxtaar wax na ne keroog ñeenti xibla yi bu sëñ Modou waxee ba ñoom ñaar ñooñ jot li wet gu ne la fay jottaliwaat ndigal li mat na fukki nit Cheikh Moussa génne kayit bi suñ bindoon ndigalul màggal gi nee na wane ko ci ñeenti xibla yi lemaat ko dugal ko ci poosam ne Ibrahima Sere nuyul ma bindee su ngeen gisee ma woote woote bii kayit wi ma wane léegi man Modou Moussa lem ko dugalaat ko ci sama poos sëñ Touba ko bindoon seerloon ko bàyyi ma sàmba mii moo tax ma woolu ko mu ñëw waaye di seer la ko war a fekk ndaw li Louga la ko fekk dal Ibrahima Sere nuyul ma binde fi dal ne ko borom tuba mo ne mon sa bu jamono bi tollo fi na nga ma dajalel sa mbolo wax len ni su bis bi jage sete fo ay nek ci adina na ñoo fanan ci sabis soxla su jar baña fanan ci yalla def ko ci ben soxla ci guddigo gi Ibrahima Sere neel binde fi borom tuba mo ne mon sa bis bi dikete rasul rabbul alamin ak ahlu badrin ak malaikatul muxarrabiina yef fi lañu bokk fi kuñ bokal fanan nak set nga wécci bakkar bàkkaar waaye kuñ fi bokal fanan nak jang alxuraan ak qasida ak salaam nabi ak ak bo ba ngay dogo set ci wécci ci ci bakkar bàkkaar do fanan lu neex ma bëgg set ci bakkar ibrahima sare neel bindeef fi kuy ñew na dugg ci saxar gi ta tontu ko manam moy joxe pass kon won kuy magasi fi nga wara sété nga fi ñew di fi taxé di bourlé la goné daan def bu ñëk ibrahima sare neel fi képp kuy magasi te ko bëggona magal ci amut pass la mu defoon ci jibaam mu poosam maana muy addi ji moo doon a siyaare na ko jox jëmm joojee mu romb mu paase ko ñëw màggal ñëw Tuuba soxlawuñu alal yi ci guddi gi róoyi la ñu ramm maam Maxtaar day message bii mooy bi mu njëkk a wàcce te noonu la ko waxe noonu it la ko mag ñooñee binde woon kon loola lu amam solo la mu teg ci na ba mu noppee nag ci la diglee nag ñu wàcc ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett wut ñeent ñu mokkal alxuraan ku ne toog ci benn koñ ci rawdatu bi ku ne jang sa kamilu bop wutat fuk ak ñaar ci li war mihrab bi wutat yenn fuk ak ñaar ci bir jumaa ji digle nak jang jess bok moy boog mu xaddimaat ak miimiya ñe des yor kur def salaatu annabi kon noné la taxawal won magal gi joxé message bobu kon lolu moy magal gi señ Modou njëkk magal gi mu a magal nak nga dekkali ak boromam muy màggalu 1944 nga xane ne 1945 fekk ko fi lolé dako ko liñi wax ay commission yoon wi ñëpp maase ci liggéey ku ci dut maam Cheikh Rahma ma nga xam ne ak sëñ Issa Dieng képp ko nga xam ne daal jiitu woon nga lu jiitu woon 43 màggal googee liggéey nga ci sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma taawam ba nag moo xalaat doxalin woowee dem waxtaan ci ak juróom sëñ mënu Moussa Al Karim Cheikh Moustapha rafetlu ko sëñ Cheikh gaaral ko ko teg ko ci loxoom ndax sëñ Moussa moo jiite murit gi te mooy xalifa sëriñ Cheikh nag loolee daf koo tuddee woon chronique attributive des personnalités devant diriger le pèlerinage annuel de Touba loolu nak moy toftalé kilifa yi nga xamné manam ñoy saytu bis bu mag bi di yoonu mouride manam moy li nga xamné mo gëna mag gëna mag wala bokku na bokkoon ci li je suis gëna mag ci yoonu mouride nga xamné moy tax nit ñi di jog di fa dem pèlerinage nak, day firi aj la ko lañ koy firee waaye li sëñ Cheikh julu woon moom mooy màggalu Touba gii ñu naan ko màggalu Daaru Xudus di bisu sëñ Touba loolu nag la Serigne Cheikh wax ne ñi ko war a organiser nii lañu ñu war a mel loola nag yow jàngat bi nga ci war a def gannaaw boo dégloo wax ji ba noppi mooy nga xam ne kon tey jii gannaaw mbind du raaf du ràpp te ci démb lañuy sukkandiku ngir doxal tey nga gis ne kon Serigne Cheikh la na nasoon mooy loo nga xam ne yoonu murit yépp la ko nasaloon muy patrimoine yoon wi la nii la ñu koy jiitee nii lañu koy doxalee nii la ñu koy gérer lenn lu ci nekk lu ne lenn lu ci nekk ña nañu koy yore ak ka koy yore ak fa mu koy yore ak na mu koy yore ak ña mu koy yoral mu def ko nag ay ay bànqaas maanaam mu séddale ko ay commission mu indi nag bànqaas bi ci gën a mag da ko def ay kër karaan mu def président général maanaam ki jiite léppi màggal gi di Cheikh Amadou Moustapha Mbacke mooy ki nga xam ne moom la ñuy daw di ko wuti moo nekk ca bopp ba moom la ñëpp di déglu moom la ñëpp di topp muy Cheikh Amadou Moustapha Mbacke chef spirituel euh, religion de la confrérie de Mouride et fondateur responsable moral des pèlerinages nga xam ne dafa wax ne Cheikh Amadou Moustapha moo wane yoon wi moo wane ne intérêt murid yi fii la ne matérialiser ko indi fi sëriñ bu mag bi tiital foncé suuf si dëkk fi dëkkal si fi njaboot gi daal ne sunu anala sunu alal a ngi nii kon nañu ko yore waaye nag loolu moom la ngay xam ak la nga cay déggee du Cheikh Amadou Moustapha du tur bi rek doomi sëñ Touba ak soxna Aminata Lo déedéet mooy képp ku fi nekkal sëñ Touba place booba yaa koy tooge Cheikh Moustapha mooma la ñuy wax ka topp ca moom di premier vice-président al mohamed el Fadil Mbakke di rakam ji nga xamne mo seuss ci mom rek mom lañ ci sesselé won nga xamne mo top ci Cheikh Amadul Moustapha ñu toftal ci serigne Fallou serigne abdullah Mbakke borom derbi ak serigne Abdoul Ahad Mbakke ak serigne salih Mbakke ak serigne Soxaybu Mbakke waye nak bañ joggé ci lool nak ñu def Cheikh Mamadou Bachir Mbacké directeur général de la tribune d'honneur officielle nga xam ne maanaa tribune bu mag bi nga xam ne kilifa yëpp fa la ñuy nekk muy lislaam yi yooyu yoon wi ak kilifay aada yi Serigne Bassirou Mbacké wajur Serigne Mountakha mi ngi ci jal bi moo ko yore di ko saytu moo yore tribune booba yore ña ko yore moo fay dogal moo yore lépp directeur général nag directeur général honoraire nga xamne mo top ci Cheikh Amadou bashir ci directeur gi comme Cheikh Amadou Fadal topé ci Cheikh Amadou Moustapha Mbacke ci président ba koka nak directeur général adjoint honoraire bi moy alxaaji Mamoun Mbacke mom mam Cheikh Anta maanaam mooy kaca top manam mo len toftal ci Cheikh Amadou bashir ak kan Serigne Modou Awa Balla Mbacke taw mam Thierno ak serigne Cheikh Awa Balla ak serigne Modou May mom Serigne Massamba mu am nag directeur général actif mooy ki nga xam ne mooy dox yëf yi moo koy waaxu ngir li ñu war a saytu ci màggal gi ngir ñoŋal ko baaxal ko toppatoo ko ba bu nit ñi teewee Cheikh Amadou Moustapha di président général Cheikh Amadou Fadal di vice président Cheikh Amadou Bachir di directeur général directeur général actif pèlerinage bi nag mooy ki koy dox di ko wax di ko lijjanti mooy taawam bu baax ba Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma nga xam ne post yi kon moo yi jiitu nekk ci kaw waaye kan moo toppoon ci sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaïndé Fatma rakkam ja sëriñ Mbacke Madina ku ca toppaat sëñ Mbacke Madina sëriñ Modou Baara Mbacke ak sëñ Abdoul Aziz Mbacke ak sëñ Abdoul Karim Mbacke ak sëriñ Sadibou Diop bu Ngumba Ngewal directeur général nag des service des réceptions moo nekkoon sëriñ Modou Xabbaan Mbacke sëriñ Takko Mbacke sëriñ Modou Farmata Mbacke Serigne Ibra Mbacke Ndar Serigne Cheikh Atta Mbacke responsable de mausolée ki yoroon barabu Serigne Touba bi mooy Serigne Mor Soxna Diop. dirigeant de lecture coranique nga xam ne bu jamono ji ñu yore commission culturelle yi toppatoo njàng alxuraan ci bis bi di bind exposition yi moo nekkoon Serigne Mbacke Kandi Bousso ñun ca toftaloon adjoint yi moo nekkoon Serigne Modou Bousso ak Serigne Madiambou Silla ak Serigne Modou Makhtar Alelo dirigeant de lecture de xasaayit ko yoroon njàngum xasida ma moo nekkoon Serigne Mbacke Diouf. sëriñ Mouhamadou ture sëriñ Aliou Sey ak sëriñ Aliou Ñaan comité de restauration ñu yoroon wàllu waañ wa ak xeet yooyu moo nekkoon sëriñ ñoom reloo sëñ Mat Daam Diop sëriñ Fàllu Diop Mor Farmata standing islamique ba bu doon tey ñiy leeral nit ñi exposition bi ak di leen waxal maanaam discours sëñ Moussa yi yi mu daan jàllale ña yore loola mooy sëñ Mat Dem bu njaareem sëñ Modou busa taaw sëñ Mbàkke Boussa ak sëriñ Moulay Boussa ëttu diiwaan muy ëttu sëñ Moussa itam kooku jiite woon nga xam ne moo ko président ARN ba mooy sëñ Modou Moussa Fall taawu maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Sarr doomi sëñ Bay Falloo Ndiaye moom sëñ Daaru Xasan ak Serigne di Jaal Seck ARN sëñ Modou Moussa Mbacke ba tey Serigne ma sorong sorong Bay di ba Serigne Saliou Fall Mbaaxaan Diop Cheikh Yaaba Diop Sidi Ndiaye Albouri Elimenan Fall sëñ Cheikh Fatako Diop. ñoo ñooñu itam ba tey bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo yoroon loolu ak sëriñ Maxtaar Alelo ak sëriñ Yoro Silla ak sëriñ Aliou Aydara commissaire arène sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke moo nekkoon sëriñ Bay di Ba addu seen sëriñ Cheikh Fatakko Diop micro centralu màggal googa 44 sëriñ Mor Joojo Fall moo ko yoroon directeur mouvement ba moo nekkoon sëñ Aliou Mbacke sëriñ Cheikh Ummi Mbacke moom Cheikh Abdoul Fadil directeur réception personnalité moo nekkoon sëñ Abdou Niane sëñ Chérif Lo sëriñ Taïba Touré màggalu 40 ak Sëriñ Mountakha mujj a màggal organisation bi noonu yi la ñu ko doxale woon nga xam ne ñëpp yoon wi liggéey nañ ci yor ko Cheikh Moustapha wax ne bu ma fi màggal gi fekkaatee noonu yi laa koy bàyyi mu doxee noonu far yàlla dogal fekkaatu ko fi kon loolu da ci déggee ne lii Serigne Cheikh Nassone patrimoine yoon wi lu am solo la alhaaji baara bi mu doonee xalifa bi mu ko gisee dafa wax ne Serigne Cheikh de lii mu ñu andiloon du woon sax ak màggal rek buñ doxale woon yoonu murid bi ku fi doon xalifa Sëriñ Tuubaa doxale ko noonu ku ne gis ci boppam da ngay noppalu noppale noppale Cheikh Moustapha mi dafa amoon ndigal lu wér ci Cheikhul Khadim ay ndigal yi mu ko batale woon waaye ki taxaw taxawaay bii nag dana yellu ñu wax ci moom mooy kan ndax Cheikh Moustapha al Karim damay faral di wax ne ngir nga waxtaan ci soo laajoon sa bopp ñetti laaj yi te tontu ko rek ci lu mat da mën a xam tuuti ci kan mooy sëñ Moustapha ñetti laaj yi mooy ban bi ci njëkk mooy tubaab bii yoroon sëñ Tuubaa lépp fanweeri at sëñ bi nekk ci loxoom tubaab bi yor ko fu leen neex jëme ko keroog bi mu dëkkaalee ak borom fekkoon tubaab bi mënoon na cee jot ba yóbbu ko France denc fa sëñ tubaa ndax tubaa dana mel nii mu mel déedéet ndax wëlëru tubaa ak nii tubaa mel nekk fi sëñ tubaa nekk la waaye feneen suñ tubaa nekkoon tubaa mooy mel noonu ñaareelu laaj bi gannaaw sëñ tubaa bu fekkoonte ne amul woon ko taxaw nose yoon wi ba mu murit gépp àndandoo ci benn waaw di fabandoo di tegandoo ba mu daarul moxti amut boobu daaru salaam amut boobu daaru xuddoos amut murit gépp ñoo àndandoo di wéyandoo su ko fi war a nekk sëñ Tuubaa lu mu wax ñu def ko te loolu yi léegi sëñ Moussa la ndax murit gi dana mel nii mu mel déedéet loolu itam kon ba tey du ni mel jumaa ji bu ñu nekkoon ba ay 1900 nangam wala atum 2000 ñuy doog a seet fu ñuy teg jumaa yu Tuubaa ji ndax dëkk bi dana mel nii mu mel déedéet Cheikh Abdoulahi sëñ Abdoulahaati daan wax ne waxtaane Cheikh Moussa doy na ci nee na moom sëñ Moussa mi sëñ Tuubaa sëñ Fallou sëñ Basiiru sëñ Baara ak moom sëñ Abdoulahat mi sëñ Moussa tàmbalee yar ba ci sëñ Mourtala mu ne soo xoolee mënoo xàmmee yarub sëñ Touba ak yarub sëñ Moussa daal di cee na ne waaye lépp na di sëñ Touba mu ne kon waxtaanoon kon loolu doyoon na ci sëkk waaye nag Cheikh Ibrahima Almasri dafa bind ci sëñ Touba bind ci mag ñëpp waaye daa bind nag dinu jàngal sëñ Manu Sawa ngir nga waxtaan ci nee na boo sukkandikoo ci lii dana dooy sëkk ñu dégg la ngir ki ngay bëgg a jàngale mooy kan bi sëñ Touba nelawee dëkkaale ak boroomam feesoon dell jamono nit ñi jaaxle المصير في بندني جانغال سيني موسى دال دي لقد كان روض العلم ان يتهزم وكاد بناء المجد ان يتهدم من سار ديف خم خم خاونا دم تو بو كونغ نبوب مبوب تباخو تير دا تام خاونا ماب مانا بي سيني توبا نيلاوي دكالي اك بروم نينا خم خم فيكون تاني اف جاردين لا دم تو نا بو كونغ ملني مبوب كين خماتوكو نينا تيرد غا بودون لا اف تباخ لا ماب بو نا بو كو خولي ñu ne ko lutax tax loolu am mu ne isxaaru bat shamsul huda wa takawarat wa laylul hawa nasi aqbala muslima mu ne jantum jub bañ xamoon kat moo suux dëkkaale ak boroomam nee na jantum jub bañu ñu miinoon mu fenkoon di sëñ Tuubaa tiim ñëpp leeral fépp moo sox suux dëkkaale ak boroomam nee na bi loolu amee nag nee na nag wa zilzilan naasi silzalan shadidan nee na wa silsila silsaalan shadidan jamia man alal ardi fa tadarrama nee na nag jantum njub boobu nag nee nag ba loolu amee nag nee nag nit ñi nag yëngutu yëngutu bu tar boo nga xam ne nee na nag bi nit ñi bu tar nag nee na nag lëndëm gu ñuul kukk nag dëgmal siwaat nit ñi ak njàqare ak wañse guñ xamut fu muy yem nee na ci jamono ci jamonoy tiit goo gii ci jamono lëndëm goo gii njub gi dem njàqare daal di fenkaat tar lool ci jamonoy jaaxle googu yi nag nee na ci jamonoy lëndam googu yi nag xam ne njub gi dem na xam-xam dem nit ñi jaaxle amatuñu yaakaar nee na jamono jooju nag ata Mustafa badrul buduri mujaddida wa fajjirul huda min jaanibayhi tabassama nee na jamono jooju nag la sëñ Moustapha nag ne tëll nag ñëw doon weeru weer yi beesalaat li nga xam ne lépp Seexul Xadiim bàyyi woon na ko fi nee na fajaru njub gi nag daal di ñëw fekk ci yëpp ñu ne ko waaw sëñ mënu Mounoussa moom mi ñëw mel noonu yi mooy kan ba tey boo ñu gënee loolu li ñu gi jël almachanr yu tegaat ca ne Cheikh Moustapha mu ngeen di laaj laajkat xadiimu xadiimil wa wabnihi lesi bihi xarraayna al kulli lama taqaddama nee na Cheikh Moustapha mu yi ngeen di laaj bëgg koo xam nee na mooy liggéeykatub ki liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam Cheikhul Xadim mi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Moustapha mi ngeen di laaj mooy ka ko liggéeyal tey nee na sëñ Tuubaa mooy baayam te nee na mooy doomam ji nga xam ne xolum ñëpp ci moom Cheikh Moustapha la sedde kañ la xolum ñëpp sedde ci moom bi nga xamee ne jiite na mbooloo mi tooge ci lal ba wuutu Cheikhul Xadim tooge ci taayub Sëñ Tuubaa di xalifa la xolum ñëpp sedd ci moom mu tekkee ne sama liptina sama liptina di majdi këhlan wa yaafian fa arba wa azra billasi xabluhu sama nee na tedd nga bu doon ne ab tabax la moom Cheikh Moustapha ba mu nekkee tuut tànk ak maanaam booba la ko booba la ko raw moo tax mu ne tedd nga bu doon ne ab tabax la nee na Cheikh Moustapha yow ba nga nekkee tut tànk ak ba mu nekkee mag kowee na tedd nga fuuf raw ñëpp nag gàcceel ñëpp ci jikko yu tedd yu daje ci moom ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te kowe Cheikh Moustapha gàcceel na leen ci lim am moom ci ay tedd nga ak jikko yu rafet tax mu ne kon fa akrim bihi min kaamilin najli kaamilin wa min aalimin xat kaana ala wa alama nee na yéemal tedd ngay Cheikh Moustapha te teral ko muy ku mat sëkk di doomi ku mat muy Cheikh Ahmadou Bamba muy sëñ Moussa moom yi nee na doomi ku mat la di doomi ku tedd di Cheikh Ahmadou Bamba mooy doomam nee na tukkee ci boroom xam-xam boo nga xam ne kowe na te xam lool mu tekaat ci ne sara sikruhu finnaasi charxan wa maghriban wa an jada lama an agaara wa atahama nee na moom Cheikh Ahmadou Moussa moom yi de aw turam tasaaroo na ci fépp penku ak sowu ak najju ak tuxam ñépp xam nañu ko Cheikh Ahmadou Moustapha متكاتين فمنه السهارة بدر حسن ورفعتا وروض الربيع بهجة وتبسما نانا الشيخ مصطفى دي وير لمي رفت رفت لمي كوبي كوبي نانا لمي لير لير نانا لير اي باك رفت اي باك كوبي لب ميمكو ابيك سن منو صفا وير لير اي بو مولير اك رفت اي بو بي مويل بتاي نا الشيخ مصطفى فمن فمن استعار البدر حسنا ورفعتا وروض الربيع بهجة تبسما nee na weer wi li muy rafet rafet li muy kowe kowe li muy leer leer nee na leeraay ba ak rafetaay ba ak kowe ga lépp mi ngi ko abbee ci Cheikh Amadou Moustapha nee na sardeeb loolu la itam na muy rafete boo ci duggee ba gis tóor-tóor yu naat ya lool nee gis toor ya naat lool féex lool nee na loolu lépp sardeeb mi ngi ko abbee ci Cheikh Amadou Moustapha ko abbee tax mu ne mataa talxuhu talxal makaarimu kulluhum wa saadafat minhu lil makaarimi ay lama nee na saa dajeeg Seex Moodu Moustapha rek na nga xam ne daje nga ak mbooleem xeeti tedd ngay ndax mbooleem tedd nga yëpp mu ngi daje ci sëñ Moodu Moustapha kon maanaam saa yoo jógee ne da ngay wuti tedd nga nee na nga jóg daje sëñ Moodu Moustapha Cheikh al Machar nee na man ngaa wàññi ko te nee na man ngaa waat ne fiiroo nga ak mbooleem ngay sang yëpp ndax daje na ci sëñ Moodu Moustapha mu teg cee ne ala annahu fil basi axjala day xama nee na day boo ko doon natt moom sëñ Moodu Moustapha ci wàllu ñeme akuk njàmbaar nee na Cheikh Moussa gàcceel na gaynde moom maanaa gaynde kenn du ko tëkkale sëñ Moussa li muy ama fit ak li muy jàmbaare jàmbaare nee boo ko nattee sëñ Moussa Cheikh Moussa da koy gàcceel kon loolu almasi def ko bind doon ñu jàngal sëñ mënu Moussa mooy kan nga xam ne kon moom lii rek doyoon na sëkk ci kon bu ñu ko doon jàngale kon xam naa dañuy wàccee foofu kàddu gi di sant ñëpp di jéggulu ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu.